ñu koy wax donc euh, Momar société Industiply euh, bi teewal la boule élite Fayabo bi ni fay lépp luy lakk-lakk. bépp type lakk-lakk. Mhm. ci Afrique bi yëpp a ko teewal. Euh, rawatina ci Sénégal donc dëkku réewu Afrique yëpp am nañ fa ay distributeurs. Euh, ci Sénégal aussi am nañ fi distributeur bu tudd société La euh, donc dañoo ñëwoon tey euh, ngir jotaat beneen ndigal bu jóge ci Cheikh Mouhamadul Mountakha xalif général des Mourides ngir mën a dolli aar ñoŋalaat jumaay suñu mag bi ci lépp luy takk-takk bu war a mën a am ba du am ak ci barabam bi ak ci daaray kaamil yi loolu daal moo ñu fi indi woon tey. mu mel ni liñ fi doon ñaan si am nañu ko Cheikh mun Mountakha dolli na euh, euh, fësalaat euh, di ñu ñaax di ñu dolli ngir ñu gën a fësal mbir mi fësal produit bi takk-takk yi am ci Sénégal mën di wàññiku teg ci aussi ñu jotaat beneen ndigal ngir gën a aaraat jumaa ji ak barab yi donk ndigal li tey di amaat nañ ko kon. waaw très bien fi mu toll nii lépp luy takk-takk. dafa bari dañuy doog ci kër yi di gis ay gaz yuy tàkk euh, euh, di am ay prise de courant yuy takk euh, yooyu yëpp doon ay takk takk yoo nga xamante ni di jur ay jéyee gis nañ fi ay nit yuy faatu ak yeneen ak yeneen extincteur classique yi ñu ngi def seen rôle mais dafay mel ni seen utilisation du ñëpp a ko mën te itam seen utilisation day laaj nit ki teew ngir war ko mën a def la Mhm. soo noppee da nga koy seen kàllaama su ko defee ndax moom. waaw mu gën a mën waaw waaw incha allah la version française waaw loolu dana ci am solo waaw kon kon mu mel ni lakk-lakk yooyu yëpp am produit bii day ñëw euh, bépp type de lakk-lakk bu am bokkut ak extincteur classique moom mi rek euh, lu toll ci juróomi type de lakk-lakk yuy dépendre ci bant wala gaz wala courant yooyu yëpp moom mi rek da ciy doy ngi fay ngi fay. bon benn bi rek da ci doy bu bëla bii moom mooy bi nga xamante ni euh, moom mooy fay lépp luy lakk-lakk buy nekk ci moteur moo xam ci oto wala bateau wala camion wala tracteur ak yooyu yëpp donc bu ñu xoolee nit ki am euh, matériel am ñàkk matériel valeur bu important ci incendie war ko mën a éviter euh, day tax dana sauver matériel am mais dana sauver surtout bakkan ak blessure ak dégâts yi incendie di bàyyi